Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall. la Seex Ibra laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah Seex Ibra ilaalah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar bu ngeen gisee jotaay bu tedd bii ñu toog ci sunu kilifa gu baax gi di sëriñ Moustapha Fall moom sëñ bu Sakkour mooy fàttaliku bis boo xamante ne bii ñi ngi koy dégmal si te mooy bis boo xam ne moo ci joxe ndigal mooy bisu Zikrullah 24 heures Zikrullah boo xam ne mi ngi ame ci Touba Treviso ci Italie Euh, tombeek 24 juin bis boobee nag Serigne Moustapha wax ne dañ koo tàmbali ren waaye dañoo fës yéene mboolem réew yëpp ñu fas yéene ko faa defee ànd koog nag mboolem soppe yi ak wëllëre yi ak mboolem tuddkatu yàlla yëpp mbooleem koo xamante ne bii jànkatu xasida nga wala ngay kuréel kat moo xam ngay yëkkati moo xam ngay kuréel moo xam muy kuréelu zikrulaay yi moo xam ñiy benn benn ñëpp lawoo ci bis boobu tambalé ko ci Italie Espagne Belgique euh, France Hollande ak ba Portugal ba Amérique mbollem ko fu soppé nek wala ngay rek Moussa Allemagne ñu fa nga Cheikh Ibrahima Fall saa boo ko tuddee sa xel dem ci jëmmam ju tedd joojee la mu waxoon léegi wax na wax nañ ko léegi gémmiñ ko yàlla xar bëgg muy wax laa ilaha illallah rek a taxoon yàlla xar ko te turu yàlla ku ne xam na cër bi ci maam Cheikh Ibrahima Fall am sëriñ Moustapha Fall moom sëriñ Abdou Sakkoor nag yéeneem ak pas-pasam mooy ñu tudd ko yàlla ci àdduna bépp waaye ñu tàmbalee ko nag Italie ci Touba Treviso kon samedi lay tombeel

booba ñëpp a ngi fi te booba doonagul Cheikh Ibra Fall de ci kaw suuf ci saayir maanaam wuuteegu ko ci lalam bii mais ñu ne ko nuñ lay bàkk mu ne da nga naan ñay mënu ci daqaa dara lu mu gësam gësam ba ñay mënu ci daqaa dara lu mu gësam gësam ba mais mi ngi génn sol benn garab bu na mbay mën a ko faal mu ne ma ñaataa ma mag mu ne ko xam naa fukk ak ñeent yu la mag mu ne ku tee toog ci lalu Cheikh Ibra Fall bu ko mënee na ko def Abdou sakku dund Cheikh Ibra Fall da koo doon oh. jëm ji woote mu Cheikh Moustapha baayam ba sëñ Abdou sakku Fall bàyyi Cheikh kan moom wax ca xaayaan dama bay mudu kën duyooli mooy sama bay moo ma ne Seera faal moo ma woo ci njëriñ na mudu kën duyooli ma ne Fall mu ne mudu kën duyooli ma ne Fall ba muy ñetti yoon mu ne doom maa ngi dem waaye danaa delsi waaye kër bu mu des Abdou Sakkoor lay doon jëmm ji woote bàyyam sëñ Abdou Sakkoor moo waxoon na sant ci am indiwuma ci mbaar mi sëñ Abdou Sakkoor ne damaa mën iléer danaa ko doon danaa ko doon ba xëy doon ko sëñ Moussa sa baay rek ko ma sa wax kon nag boo wootee danañ la si ndax nañ ne yaay Cheikh Abdou Sakkoor nag sëriñ bi nee na bis bi mi ngi ciy woo mboolem ñu mbokkal Cheikh Ibra Fall te ne ci biir réew mii moo xam fu ne ci àddina bi képp ku sant Fall ko fa nekk sëriñ bi mu ngi lay woo ci bis bi mboolem kilifaam yu tedd yi muy njabootu sëriñ Touba gi diggante Mbàkke Mbusoobe sëriñ ne mi ngi leen ci woo ci bis bi waaye bis bi daal nee na lam ca yéene mooy turu yàlla wi di jib ba àddina bépp di ko dégg ñu fas yéene tudd yàlla waaye bu nekk ba ci turu yàlla wa nag ñu tënk nag waxtaan woo xam dañ koy soññante ci suñu biir waaye soññee nag ci li fi Cheikh Ibra bàyyi woon te mooy addiya wa salam wa taala wa wa rahmatullahi taala wa barakatuh ngi leen di nuyu ci Modou Moussa Modou Moussa Fall mi vous Abdou vous vous mam Cheikh Ibrahima Fall Mouridine eh, di leen fàttali rek le 24 juin ci bàyyi Fall zikrullah maam Cheikh Ibra da daan wax dem nay sëg dem na jàkk dem nay sëg dem na jàkk muy fàttali nag bisub le 24 juin boobu ci Treviso muy woo Baye Fall yi ci àdduna univers bu Baye Fall yëpp bu kenn des daf ko fay tàmbalee mais dafa bëgg mu wër mboolem fu capital européen nekk dafa bëgg ñu fay def zikrullah bobu jàppal ko bis mel na ni nag sunu boroom dana ko ko defal nim ko bëggee ngir fi ñu ko tambalé té mu bëgg mu wër Europe gep fi moy capitale de de de de de la communauté européenne fi ñu tok tay Bruxelles ngi nii duñu dégg ñu nekk Anvers muy capitale de la communauté européenne kon dana dana wër fep ndax lu def fi ci Europe la defe ko fi waxee ko fi yëglee ko fi kon fii nga ko yëglee Fall mooy xamle ne yow euh, sa maam Cheikh Fall daa ànd ak yow ci loolu incha allah ñu ngi woo Baye Fall yëpp Treviso le 24 juin tey ngeen xam ni euh, dañoo wax ne euh, ku ku roccil bët mbëtt ku roccil bar waaw kon ku liggéeyal sëñ Touba war ngaa wëlbatiku nag ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina mi jàngale ab liggéey ci Serigne Touba. Treviso daal soxla nañ Baye Fall yëpp ci ginnaaw sëñ Modou Moussa Fall mii moom sëñ Abdou Sakkoor ndax bu ñu ko defee bu soobee yàlla dem ca daje ngërëmul sunu borom subhanahu wa taala. aouzu billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallama ala alhaadi al amin سيدنا شفينا الكريم خير كل خلق أحمد عليه صلي ثم سلم سرمدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم mbokki taalibe yi mbokki jullit yi waa kër Cheikh Ibrahima Fall dañoo toll jamono boo xam ne nag Cheikh Ibra Fall war a jàng gëstu yi dem ci la waral tey ko gën ci kër ku gën a am barke ci kër ku gën a nangu ci kër ñu ne Baay Fall li ko waral yoon wii bi fi Seexul Xadim dikkee فك نفيني جانغ القرآن وحنا قصخ مم تلاوة القرآن بغير الذكر لجنت لمي مي جانغ القرآن القرآن بين بعد بمي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله بيجا خميني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يونا كشيخ الخديب داكو أخنكو ربي أصحابك بالحمة ولا تربين بدر فقط شيخ الخديم وانا اللي تخيل اندي لفي mooy salaat nit ñi seen diggante ak seen borom pas-pas passif ñu ko fi jiitu ñëw nañ ronu cheikhul qadim waaye dañoo dem ba ki nga xam ne moo war a wane ne diine ji jikko la ci ak pas-pas ak nangu moo lay taxaraw cheikh rafal soog a dugg cheikh rafal wane na cheikhul qadim ba tey jii nit ñi ñëpp xam nañ ne jamono am na rëq-rëq borom xam-xam yi tuddee ko société éclatée ñi ne fracture sociale ñi ne crise des valeurs kon am na loo xam ne fi mu nekk nii mooy jàngoro mooy diggante doomu aadama ak boromam am na ci loo xam ne yàqu na comme diina ji jikko la ci lii Cheikhul Khadim wone mooy yi mooy diina Cheikh Ibra Fall wone ko nañ jàng Cheikh Ibra c'est la solution ñu jox rendez-vous samedi 24 juin 2023 ca Italie muy bés bo xamné ne duñ tàmbalee ci ba barkeb Cheikh Khadim ngeureumal Cheikhul Khadim ñom té te darëjee Cheikh Ibrahim. Fall ku dik sa aju kon nak nañ tabalé ci bismillah fasiyé di ko yëkëti parce que la ñuy yëkkati mooy lahi. illallah ca sëñ Muntaqa yal na fi yàgg ba ne nañ ko yëkkati ca kaw ca bum laal suuf kon ku ko yëkkati yokk ba faw raw say maas yal nañ ci bokk ka ku dégg muy sax woote ca bul xaar kenn ku dem nga dem ku demul nga dem ca njëkk a siddu gën a duun la gën a barkeel la Cheikh lay joxe dikki leen asalaamaaleykum mbokk taalibe yi mbokk jullit yi ñu ngi leen di ziar ziar ya gën a kawe ziar yi gën a mate xam naa sax ndigal moo jib waaye xam nga liñ fi jot a wax lépp matale na lépp waaye nag bu ndigal dikkee moom jëfee rek kon daal euh, kon daal ñu ngi leen di ñu ngi leen di woo kon si bis boobu nga xam ne si euh, dégg ñu ñëpp dégg na ko suñu sëriñ suñu kilifa sëñ Mouhamadou Moustapha woote boobu muy woo di ko wooweel maam ja kon ñu ñi ñu nit di sëñ Mahmoud ànd kook moom di si woo mbooleem taalibe yi murit yëpp ak Baay Faal yi ak fépp fu nu nekk kon di leen wax ni kon bis baa ngoog le 24 juin sa Treviso ñu tàmbali ko nag te xam ni door la bi nga xam ni si Europe bépp ba àgg Amérique bàyyi wun fenn duñu bàyyi fenn ndax nag maam Cheikh Rama Fall moo wane woon nan la moom ka wane woon foofu nag fu mu nekkit ak féppit ba tey jii tey la gën a waalo gën a aay kon boog ñu ngi si woowaañ ñëpp te sëñ bi nag wax na ni képp ku fa teew sa aajo faju kon yàlla nañ ko mën te teew fa kon ñu ngi leen di ziar kon de 24 juin sa télévision incha allah. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina mbokki Baye Fall yi ñu bokkal maam Cheikh Ibra mu ngi leen di nuyu di leen siyaar te di leen woo ci turu sëñ Moustapha moom si Abdou Sakkour Fall mu woo ñu nag ci li ñu tax a jug ndax suñ maam Cheikh Ibra waxoon na ni ba yàlla lay sàkk suñu gémmiñ yi du def ci dugub waaye tudd koo kon nag sëñ bi di woote ci turu yàlla woo xam ne dañ koy def le 24 juin bu soobee yàlla ca Treviso foofa ca Italie ñu ñaan képp ku dégg kàddu gii te yaakaar suñ Tuubaa yaakaar suñu xam te di jullit ànd tudd yàlla te dañ koo def ci ndigal teg ci kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp te di leen woo tey ñaan ñu tase fa te defee ko passif ku ko dégg mooy sa woote. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñun mbokki jullit yi fi teew yëpp di mbokki taalibe yi. ñu jël kàddu kii ci turu sunu kilifa gu tedd gii di Cheikh Moustapha Fall moom sëñ Abdou Sakkoor mu maam Cheikh Ibra Fall Baabul Muridiina euh, li matoon wax ci wax ji yépp nag kilifa yu nu jiitu wax nañ ko ni ko sëñ bi bëggee waaye sëriñ bi di leen xamal ne rek bi muy wootee lépp ci ndigal la ko teg mi ngi koy ndigal li ki ci jiitu mooy ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall di Cheikh Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda yàlla na fi yàgg loolu te kooku lépp lu mu waxit ak li mu joxe ndigal jëwriñu sëriñ Touba ja Cheikh Mountakha Mbacké moo ko joxe moo ko digle moom yàlla na fi yàgg di ànd ko wér mu jaar nag bu jógee ci suñu am di jaar ci kilifaam nga Cheikh Fallilou Fall lu fi toog toogaayu sunu maam ngi tata gas Cheikh Abdou Sakkour yàlla na fi yàgg loolu te ànd ko wér ak njabootu Cheikh Abdou Sakkour gépp ndigal li foofu la jóge jaar ci Cheikh fallu ñëw ci Cheikh Moustapha mii nag mu di ko defee noonu ngeen ko waxee ngir bëgg a dimbali nag taalibe yëpp ci liggéeyub Serigne Fall bi moo waral muy woowee bis mu muy wootee bis boobu yi. nee na sëñ Saliou Ndiaye mi nga xam ni mooy jëwriñu fédération Italie bi moom it ñu ngi koy ñu ngi koy jiital ci woote bi. Mm-hmm. ak mbooleem Baye Fall yi nekk Italie ak mbooleem rek ab taalibe fu mu nekk ci Europe bi fépp. Mm-hmm. ñu lay woo nga teew ci bis boobu yi. Mm-hmm. ndax jubluwu ci lu may dimbali nu ci liggéeyu maam Serigne Fall bi. Euh, kon loolu rek mooy kàddu yu nu sëñ bi waxoon ñu leen ko ci dolli. jërëjëf sëñ baa ngi leen sant nag leen gërëm. di ñaan ñu fekke ko te mu ànd ak tal ak xéewal yu ñu ko mën a defee nam ko bëggee ci barki maam ji maam Cheikh Ibra Fall barki waajuram ji Cheikh Abdou Sakor Fall le 24 juin à Treviso ca Italie ñu ànd ko ak Baye Moustapha Fall Abdou Sakor yàlla na fi yàgg te wér ak mboolem Italie bi yëpp bëgg a gis lu neex waaye jibi bu set te sell setantal ak déggi daaj ak indi nag ñu fekk foofee insha rabbi le 24 juin à ne pas rater bu ko kenn fàtte Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall